dañuy nuyu àdduna bi yëpp euh, nuyu Sénégal ak diaspora bi di wax ne tey dañ fi daje woon euh, pour def euh, benn point de presse boo xam ne li ko waral du leen dul soutenir kenn koo xam ne su ñun la bokk muy Ameth Ndoye bi nga xam ne dafa nekk ci ay jafe-jafe di wax rek ne Sénégal ak jaspora bi jote nañ appel fu ne <clears throat> ci ñi nga xam ne ay soppeem lañ ndax taxawaay bi mu amoon ci ci Sénégal ak euh, position yi nga xam ne moo tax nit ñi naw ko ba di koy suivre euh, tey nag comme ni ngeen ko gisee nii euh, Sébikotane booloo ànd ci ak ñi nga xam ne mooy Sénégal yëpp ndax région yi ci Sénégal yëpp am na ñu fa jóge tey ñëw fii Sébikotane pour soutenir ki nga xam ne mooy Ameth Ndoye lii nag comme ni ngeen ko gisee Euh, moment la boo xam ne dañuy manifester ni wéetu ci et que Sébikotane Sénégal en général ak même diaspora bi ndax am nañu ay intervention fu ne soppeem yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew kenn ku si nekk la nga xam ak la nga man ak la nga am yaa ngi koy def pour que Ameth génn ci jafe-jafe yi kon dafa jaadu ñu génn taxaw Euh, sant leen gërëm leen ci loolu waaye it di ñaan yàlla suñu boroom moom miy tege nattu mu teggil ko nattu bi si jàmm salaam ba pare nag jaare ci gën a yokku dayoom ndax nit la koo xam ne def na lu tool noonu weesu na sax loolu ay jëfinam ay kàddoom taxawaayam jar na loolu te weesu na loolu kon nag euh, xëy na kàddu yi du gudd li waraloon jataay bi rek la ñuy wax mbooloo mi di lancer appel nag di lancer appel sénégalais yëpp de tout bord ak diaspora bi ñu continuer mobiliser wu continuer wu suude wu continuer wu am solidarité bi nga xam ne manifester nañ ko di ko ñaanal yàlla mu jëlee ko ci jafe-jafe yi waaye bu ko defee aussi altine bi nga xam ne ci la war a am audience bi ñëpp teew fa képp ku ko man ku ko mënul aussi fa nga nekk nga mën ko defal ay ñaan bu ko defee suñ borom mën ko jëlee ci xat-xat yooyu mu nekk ba mu génn dellu si njabootam mais aussi mën a reprendre ay activité am. salaamaaleykum maa ngi tudd Makhtar Niang di coordonnateur di collectif de soutien pour Ahmed Aina Ndoye ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ni lii dal na suñu kaw si bu ko daan gépp maase ànd ak ñun di góor di jigéen di mag ak ndaw ndax collectif bi kat. ñi ko sumb ñëpp di ay nit ñoo xam ni ñu ngi faree ci parti bu ne couche politique bu ne yaa ngi ci collectif bi muy pouvoir di opposition di keneen a keneen kon ñooñu bu ñu booloo nga xam ne lenn rek moo ko tax a jug muy solidarité acte de solidarité bi pour kan la pour Ahmed Aidara Ndoye muy koo xam ne doomu sebu ko Sébikotane la boo xam ne dafa yàgg œuvrer sur le plan social sur le plan économique et sur le plan politique bu Sébikotane koo xam ne dafa yàgg a dooleel Sébikotane ba muy ndaw ba léegi lépp lu mu mës a dugg mi ngi xool nan lay taan di développé te ku ko xam ci Sébikotane nga ko xamee kon nag ku mel noonu nga xam ne nekkoon jàmbaar nga xam ne saa woo saa mi ngi xool nan la mën a def ba Sébikotane jëm kanam bu nekkee ci ay xat-xat jaadu nag ña mu doon dimbali ak ña mu doon taxawu ñu mànkoo doon benn jàppale ko ñaanal ko yàlla xat yi mu ne suñu borom teggil ko ko xat-xat yi nag dañ ci santaat yàlla bu baax a baax ndax képp koo gis mu am ab ab daraja dafa jaar fii ma koy wax léegi léeg Cheikh Moussa Ka dafa wax ni suñu borom bu la naree jox ay daraja ay natt koy xaymaa te balaa laa wóolu ba jox la mbir ma nga ca tànki mbër ya kon Ameth deful lu dul aw ci tànki mbër ya ñu ngi lancé appel nag solennel di ko ñaan autorité yi di ko di ko ñaan kilifa ak ak képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi lay ñaan di la dagaan Ahmed mii nga xam ne day sunu xarit di sunu mbokk di sunu doomi réew nga xam ne li mu mën ci réew muy ak li mu mën ci daan amaana bu bu bu bu dul moom kese ko fi man ñi ko fi man bariwul ñoo ngi ñaan altine jàmm ak salaam incha allahu rabbi bu ñëwee ñu bàyyil ñu Ahmed Aina Ndoye ñu ànd ak moom ñibbisi ñoo ngi sant ñëpp nag ndax boobu ba léegi kenn toogul kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi ndax ñun bu nekkee benn collectif boo xam ne dañoo am yar am diine am reconnaissance suñu dëkk balaa ñoo def lenn dañ ci dem ci kilifa yi dem nañ ci xalifa généraux yi ci chef coutumier yi ak képp koo xam ne nii responsable religieux nga wala wala wala politique wala social fii ci Sébikotane dem nañ dem nañ ci yow waxtaan ak yow wax la ni la carrément lii ñu yëkkati soutien pour Ameth moo ko tax a jóg bu ëllëgee incha allahu rabbi ñu jéem a xool yeneen perspective mais collectif bi judd na te doxul ci lenn lu dul social képp koo xam ne nii Sébikotane nga soxla ndimbal ak taxaw ñu taxaw la ci ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kilifa yi wàcce nañ kaamil am na ku ne woo ba Casamance ni ñoom bu ñu julee taakusaan incha allah dinañ kaamil waa Kaolack diaspora bi comme ni ko Maodo Ndiaye waxee kon Ameth Touba fu ne kon Ameth Ameth international la kon nag lii rafet na bu ñeneen ñi di taxaw Ameth ñun waa Sébikotane ñoo ci war a jiitu te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñoo ngi sant yàlla bu baax tey nuyu ñëpp tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw sëñ Dieye nga xam ni mu jóge ba Sénégal suñu cox waaye di nuyu mboolem ku fi nekk ak ñi nekk ci biti te ñëpp tey jii li leen fi indi du leen lu leen borom bi subhaanahu wa taala ci alquran ci làmmañu suñu làmmañ ñu wuutoo ko alquran ci làmmañu borom bi subhaanahu wa taala sant la ci xew-xew bi ba pare ndax yàlla bu la tegalee nattu yow jullit boo nee jullit nga nga gëm yàlla faw nga gëm nattu bi ndax dafa bokk ci charte jullit ci gëm dogal dogal yooyu nag lu neex moo ci am lu saasaay lu naqari mooy am bu fekkente ne loo xamante ne ah du doo am lu nangu dogal bi ba pare sant ci yàlla yàlla daal koy jël na muutal ko def ko ay xéewal kon ñu sant yàlla bu baax ci lii nga xamante nii dal nañu bañ am sax tey ji opportunité daje ñu ñëpp ci jàngal xamuñu lu tax yële bi yàlla def boo xoolee âge yëpp a ngi fi al yoo xamante ne amaguñ benn bàkkaar seen wicc ñu ngi fekk ay mag yoo xamante ne ëppal nañ juróom-ñaar fukki kon loolu sant yàlla ñi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ne ñi ngi ñaan barke turandoom sallallahu alayhi wa sallam yàlla na suñ borom teg loxoom ci teg loxoom dolli teg loxoom ci moom natt bi kenn ku ci nekk war ngaa kaa jàppe comme sa bopp rek ndax foofu mu ne kenn ku ci ne xam na ni bon taxu faa def yonent la jëkkee yonent yi am na ñoo xamante ne yàlla nattoo na leen loolu am na cay jël rek yonent yàlla yusuf mi nga xamante ni nattu bu mel nii daal na ko jaare ci jigéen ak ay pexeem ak li fi alxuraan net leen ñun ñëpp xam nañ loolu kon ci moom la njëkkee te yàlla teg na ko ab yonent te yàlla ci ndimbalam ak kàttanam bu ci dugalul woon loxo yonent yàlla Yuusuf setal ko du yomb waaye yàlla moom kum nar fay ni mag ñi di wax faw mu liggéey loola bi ci des mooy bu fekkente ni ci mag ñu baax ñi nga xamante ne ñu fii ci réew kenn ku ci nekk gis nga tolof tolof natt yi nga xamante ni saytaane ak ñoñam ak paxay nit ak ay ay ay ay ay ay xalaatam teg nañ leen ko ba dugal leen foofu boo ci jëlee ku mel ni Cheikhul Khadim boo ci jëlee ku mel ni Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum ak ñu ak yeneen yu dul ñoom ñoo xamante ni jaar nañ ci natt yu mel noonu ay pexe ak ay xalaat ak ay yu mel noonu rek moo tax ñu ñu teg leen yooyu nag su fekkee yooyu yëpp dafa daje mu dal ci moom ci koo xamante ne Ahmad la tudd nga xamante ni booy xool yonent bi lañ ko tuddee damay wax ni amul géej ruux bu wàcc ci kaw suuf natt yi dal sallallahu alayhi wa sallam pexe yi dal sallallahu alayhi wa sallam dal sa amul waaye yooyu yëpp ànd ak yooyu yëpp yàlla da koo muñ lool mu nangu muñ jikkoom yi tedd yooyu ñuy wax tey jii ba di ko di ko gàmmoo di ko conférence di ko jàng alquran di ko demee ci barab yu baax yi jikko yooyu yëpp li ko may mooy muñ muñ rek ko may nit ku mënul muñ mënoo am jikko yooyu muñ googu nag moom lañ a xam nañ muñ muñkat la ndax dañ koy déglu xam nañ ni ku laabir la ndax ku social la xam nañ ni fonk doomu aadama la xam nañ ñi ku fonk tamit mag ñi lañ ndax day dem ci mag ñi di xencu mag ñi di xencu ñooñu daal loolu nag su fekk waaleykum salaam su fekkente ne dafa dal ci ku mel noonu wax dëgg yàlla ñu ñëw di ko jàngal alxuraan dañ ciy sant yàlla dañ ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla nag mu tekki loxoom te teggi ko dañu wax ne am na mbir yoo xamante nii wala la kaa suñ borom di jox faw mu teg la ay natt pour wax la ni am na garaat yoo xamante ne bu la ko yàlla naree teg bu la ko naree jox faw mu nattu la kon natt bi nañ ko gëmee am natt waaye ñun xam nañ kuy amet xam nañ lan mooy jikko amet loolu ku nekk sëb na ko nekk sëbu xotaan xam na ko ku nekk semi biti sëbu xotaan xam na ko loolu nag kaddu yi mooy kaddu yi kilifa yi Baye ak mbooleem délégué quartier yi ginnaaw nag bu ñu santee ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo def mouvement bi te defuñu ko lenn lu dul ñëw ngir jàppale ko ndax xam ni doomu si bu xotaan te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo sant ci lii kenn ku ci nekk am àq la suñu diggante ak Ahmed taxawaay bii ñu ci taxaw kenn ku nekk àq sa diggante ak moom ñun ñi fi nekk nag wàcce nañ ko ci des waaye ñun ñëpp buñ ko seetaanoon la leen mën nañu cee fekk waaye nag ci seetaan ci topp gi ñu ko topp ñëw jëf jëf ji ñu jëf jàpp naa ne lii ku ko gis rafetlu ku ko dégg daal di koy rafetlu te yonent bi doon na wax ni sa mbokk day bu bu fekkee dafa am jafe-jafe su tooñee da nga koy dimbali suñ ko tooñee da koy dimbale waaye ñun xam nañ buñ ko tooñee nuñ koy dimbale waaye nag su tooñee nuñ koy dimbalee mu ne da koy da nga koy jàppale ci nag ba mu génn nga wax nag yow yaa ngi kon ñun du ñu am lu dul rek ak lu man di xaw doomu si bu xotaan la taxawaay bu doomu si bu xotaan di war di taxaw délégué de quartier dañuy ñëw ànd ko ak yéen ànd ko ko ak ak imaam yi ànd ko ak njaboot yëpp ngir watam ba natt bi yàlla teg ñaan yàlla subhaanahu wa taala na natt bu mel nii yàlla bu mu amati fekkente ne nag mooy li gën yàlla gën ñu koo xamal xam jekk ne lii mooy li gën ci moom wala mu gën ci ku mel moom tamit yàllaa ñu ko gën a xam bu ñëwee nañu àndaat ak muñ ta nangu dogal boobu loolu mooy jëfi julli kon loolu nag moo doon kàddu mboolem sëdu xotaan ndax nag président bi moom jàpp naa bu waxalee délégué de carte yëpp la waxal hmm. sant di sant nag ndaw ñi mooy li ñu ñëw xam ñan ñooy seeni kilifa ñu dem ci moom li ñuy gën a rafetlu mooy dem nañ ci Pape Mame Moussa dem nañ ci Baye Mourlo dem nañ ci président dem nañ ci tamit ci président ay may ndax man jaar na ci man ñoom ñaan ñëpp maa leen ko informé loolu nag mooy taxawaayu jullit loolu mooy taxawaayu dëkkandoo loolu moom mooy taxawaayu ngor ak diine yal na leen yàlla fay di ñaanalaat waa daala ji di ñaanalaat tout tànk yi yëpp fi daje di ñaan borom bi subhaanahu wa taala waajuram mu jigéen mi nekk fii ci kër gi xam nañ ni ku ku ku doom la ku ku ku jàmbaar la man korog ci tudd tudd Ousmane dama fee jaar di ko ziyaare ci lii mu wax ma ni dama laa sant nga jàngal ko ay yaasin boo leen seetloo ko ba mu ñëw sëñ Moustapha mii ci wetam ba mu ñëwee fekk kaar bi foofu lu gaaw gaaw jàng naa foofu ñetti yaa si ndax loolu looloo tax ba ma essayé toog rek ma ne son sant na ma ko jekku naa naa jëkk jàng fi ñetti yaa borom foofu laa ko jëkk jàng yéen a am loolu di leen seereel nag mbir mi tamit bi mu amee Baye As mi la cay taxawaayam ca gendarmerie def na loolu nag faw ngeen xam man mii dem naa ko te yëguma ba ma demee ba may wax commandant bi ci ndigalam laa fa bi ndax dafa tombeeg bàyyi Maodo wàcc liggéey ma xam ni lii bu doon moom la mu dégg ko sama quartier bu ko yëgee du ma tàgg day jug dem defi ko moo tax ba may dem gendarmerie di ca pelade yi man tàgguuma ko damaa xam ne Baye As mi ci benn nattu ma ne naa dem defal ko ko damaa xam ni Baye Malick bu ko yëgee dana ko def te noonu la ko defee ba mu ko yëgee daa jël téléphone moom président woote ci lañ ca war a def ñu ko ciy def pour wax leen ni mbooleem délégué de yi nga ànd ak yéen ci te lañ ca war a man a def war ko mën a wax ña nga ko cay def ñan nga ko cay wax am na nag loo xamante ni kilifa moom du ko def maanaam kilifa balay at bu ci dara Baye Cheikh Diallo dafa def wax ni kilifa du gàggat koo ci mbedd loolu nag mooy waral parfois bu dara xewee délégué de quartier yi ñu am droit di wax ci réseaux sociaux duñu am droit di wax ci ci ci ci ci ci groupe bi ñun amuñu ci droit ndax ku nekkay filtré du groupe bi hmm. waaye nag la ñu ci war a def la ñu ci war a wax lañ ca war a dox danañ ko jub te duñ ci xaar kenn def ko lu bu fekkee ne lu mel nii ne dafa am ba njaboot gi toog ñu am nag ubbi suñu dënd leeral leen lañ ca jot a dox ak lañ ca jot a wax waaye ñu leen di seerali président lam cay jot a dox ba lu si bu ko ma ko ciy def ma ngi ko cay def bàyyi aas mi noonu ak seenu njaboot yëpp kon ñu ngi ñu leen di santaat di leen gërëm kàddu yu gudd na ñu ci jéggalu di jéggalu ñëpp xam ne daal mbir mi moom euh, sëñ sëñ Ahmed doomu xolu si bu xotaan ku ko xam ak ku ko xamul doomu xolu si bu xotaan ndax defal na bu dee benn bés waaye waxuma la moom ay waajur këram jëfal nañ si bu xotaan lu tax bu nekkoon ci benn jafe-jafe ñun dañuy jug def xaaruñu ci dara ñu ci benn fay lu dul fayu ci yàlla subhanahu wa taala ndax nag jar na ko jëf na ko fi wax na ko fi dox na ko fi te dinañ ci dox danañ ci wax danañ ci jëf waaxu daawaana alhamdulilah kenn du waaye kàddu yi war a wax yëpp yëpp sant yàlla imam Moustapha waxal na waxal na délégué de quartier yi waaye waxal na ay imam yi fi teew waxal na itamit daara ci bu dégg ay kàddoom te déglu waaye xam na wax na waxi imam yi yëpp wax na waxi borom xam-xam yi wax na waxi délégué de quartier moom kay dañ koy sant di ñaanal yàlla taxawaay ba rafet na kàddu yi rafet na sant yàlla yàlla ñuy matale la Maxtaar yéen tamit li ngeen def loolu ngeen war a def loolu mooy yëfi jullit mooy yëfi mbokk mooy yëfi dëkk boobu li ngeen dajale ko bëri jullit ci boppam bu déggoon ci mbokk jullit boobu jóg soo daal la moo laa nag dëkkandoo moo laa koo bokkal lii mooy li jaar li ma wax na ko léegi nit bu tooñee nee yaa tooñ waaye jàppale ko loolu mooy affaire bu tooñee ne ko yaa tooñ bul insiste ci ne ko yaa tooñ nga xam ne moom moo tooñ boo liggéey du ko def buñ ko tooñee nag nga ne nga ne ko yaa ngi ci dëgg booy dee ci sa dëgg deen ci sa dëgg alaa loolu may wax li mu wax it dégg ngeen jombul lii yóbbu kenn moom mi dal la nattale na teg ni mu ko dalee ba ci gën a yéeme nag nattale na ko wala yooyu daal ay yonant kon nag simple moom boo fa boo koy waxee ko dañ jaalu Yuusuf bañ koy yóbbu ci kaso bi tëj dañ ba nag tëj bi ko tooñ ci boppam moo ko tëj lam ca teg ci wax bëri na mu ne ko rabbi sijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii daanaka sax moom moo ñaan yàlla ñu tëj moom moo ñaan yàlla soit si dem ci kaso ngir daa kaso bee gën a mucc ayib la ca des mu ne ko rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunani ilayhi ah yàlla nangul ko loola loolu nag mooy taxawaay bi kaso defarukaay la ci ku baax waaye bu dee ci ku bon nit gën a yàq waaye bu dee ku baax moom dafay ala kulli xaalim da nga am na nga da nga wéetoog sa borom da nga mën a jaamu yàlla da nga am jàngal yu ci li nga doon dund boo xasee ba da ngay mel bu génn àddina yaa ngi ci beneen yaa ngi ci beneen monde waaw am na barab yoo xam ne boo ci nekkee rek yaa ci beneen àddina gis nga julli ci la bokk boo xasee ba kàbbar boo ci bàyyee xel nga xam ne nekkatoo ci àddina bi même boo doon xalaat ci wàllu àddina yi danga xam ne yow mii nekkatoo ci àddina bi dégg toilette bàyyi leen ci xel boo duggee toilette da nga nekk ci benn alam bokkut ak da nga newoon lu ci ëpp ci xalaat yu wér sax ñaare boo bàyyi xel fu mu koy jëlee moom ay barab yoo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa yéeme yàlla def yot yàlla dogal loola waaye nag bu fekkee ba mu fay dugg tudd nga yàlla mislu xalaat mhm. yu wér ah, man dégg naa ko ci taalibe yu bëri yu wuute sax dina aaya sàngam day ba ma nekkee naa ko waaye na ma ko déggi jaaxaloon na ma dafay toog ci douze bi di xalaat ci aaya bi waaw du ko càmbar dafay am maanaam yooyu dañ ci bàyyi xel bu baax kaso yi noonu la mel bu yàq nit day defar nit lu imaam wax na ko léegi yenteelu su lan moo ko génne ci kaso buur bee ah leen moom astaxlis boo ne naf ba mu ñëwee mu proposé ko ay poste ma ne ko poste sangam la mën naa koo gérer fa mu mujj mooy nguur gi ci loxoom la masat la tegu kon loolu mooy àddina nañ jàppalante nañ yërëmante nañ dimbalante te loolu la ñuy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngaloo bu néewee doole tey looloo ñu ko xañ buñ toroxee looloo ñu ko xañ bu ñàkkee wërsëg looloo ñu ko xañ buñ amee doole itam bu am doole loolu nga jëf moo ñu nekk benn jëm yërëmante bëggante benn jëm boobu su bët bi métti yaram bi benn du nelaw bu loxo bi métti yaram bi benn du nelaw bu nopp bi day métti yaram benn bu bëñ bi day métti yaram bi ñëpp ay ànd fo di xoole loolu mooy ay juddit loolu lañ war a àndee loolu lañ jàppalante loolu lañu dimbalante waaye itam teg ko ci wa tawaas التواصل بالحق والتواصل بالصبر تعاawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan dana yàlla digal dana may taxaw ñuy gërëm kilifa yi fi teew yëpp yëpp bu la neexoon nit ñi fi teew te du tee seen taxawaay day rafet waaye dal di seen yitte ñoom bokk ñun taamin bi bokk ñun jotaay bi def ci seen i xalaat def ci seen yitte loolu rafet la kon Oustaz Babacar yu tudd léegi dara sax xam nañ ne jot amul waaye am na yëg-yëg teew waxtu naa sax yaa ngi ca daara ja waaye nag macha allah fekk gi am na solo day wane ne kon teew na ñëpp teew nañ Ndiaye Mamadou Lo teew na Ndiaye Mame Moussa Lo teew na teew na seen ak jafe benn bopp lañ ñëpp a xamante ñëpp a xamante te loolu nag mooy loolu nag mooy mooy fondation dëkk loolu may dëgëral ab dëkk loolu may tax dëkk di am doole mooy wala nekkoon buñ àndee luñ bëgg a taxawal mën nañ koo taxawal luñ bëgg a daane mën nañ koo daane kon nag nañu gën a jàppalante te dimbale ndaw ñi ci xalaat ak ci ñaan dañu dimbale ndaw ñi ci xalaat ak ci ñaan waaye tamit yéen ndaw ñi attention danañ dem ci borom xam sa'ilul ulama wa xaalitul xukama wa jaalisul kubara yonent bi jàngalo dañ ci bàyyi xel ñett la deneen laaj borom xam-xam yi lépp luy dugg lu mën a doon waaye dama laaj borom xam-xam na ko damaa bëgg def nangam mais lan la ci sare a wax xataa booy labat sax laaj ko damaa bëgg a labat soxna mu wax la sart yi ngay labatee soxna bu ko bëgg a xeeb da ngaa bëgg politique laaj ko nan laa bëgg politique am wax la ci la sane a wax soo ko defee doo juum de beneen bi timit mooy daneen toog ak mag ñi am na ay mag ñu ne ci dëkk bi yoo xam ne ay politiciens lañ am na ay ci dëkk yoo xam ne borom xam-xam lañ am na ay mag ci dëkk bi yoo xam ne dox nañ gis na lu ne mais di toog ak ñoom di leen laaj lu solo la lu am solo la beneen bi tim mooy ngeen di jaxasoo xokkamaa yi saas ne ci dëkk bi di ay borom yu bopp di ay politiciens yu mag wala ñi ay borom xam-xam yu mag may ñu am digg ci jamono dëkk yu yéemi yàgg dox ñu ne danañ jaxasoo ñoom danañ jaxasoo ñoom lii daal ndaw lu ko def ñu fi mag ñu jógee doo wutu waaye ndaw ji tegg tànkam nag doo mën doo wutul kenn dan lay njaboote mais doo njabootal leen loolu mooy li wér kon bàyyi ci xel bu baax a baax tey tamit boo leen xëyee leen julli jàpp ba set da ngeen sa jaar ci mbedd mi te yow leen jàpp attention bu génn ci mbedd mi di ndaw ak lu mën a doon bu sa oto te yoroo jàpp bul génn te yoroo sa jàpp bala ngaa génn ba mu ne julli ñaari rakka ñaanali li nga man ci ñaan door a jóg génn mus lu léemu door a génn yow may addina bi de yow may addina bi xam nga yéen tamit jàngale dafa wax ne ab duwaa silaaxul li tax yéen tamit tuddee duwaa silaax loolu ma ta bàyyi xel mooy yow jullit bi chaque instant yaa ngi ci bu ne yaa ngi ci guerre yaa ngi guerre ak sa bakkan yaa ngi guerre ak saytaane yaa noon yaa ngi guerre ak lépp lu safaanoog yow mais ban doole nga am mm-hmm. amoo benn doole amoo benn pexe amoo benn xam-xam leen rek la mën a jàppale ci nga mën a gañeel ci guerre yi ngay guerre mooy as doa c'est vrai loolu rek mooy jafe affaire moo ñu fi dajale mooy def def moo xam ne adoa u muqul ibada muqul ibada dépp lu ibada bu yooyee àndul ak ñaan <laughs> bu feebaree articulation yi bañ mooy àndul ak ñaan maanaam ibaada bu fekkee ne jëmm ju taxaw la ba amul yuur dafa mooy dafa yooy xar mu amul yuur mooy dafa yooy nit bu amul yax yi ba amul articulation yi amul yuur yi ca war a nekk biir yax yi du dox day fanax du am doole loolu lañ ñaan mel ci biir jaamu yàlla kon ñu bàyyi ci xel bu baax loolu mooy kàddu yi ba muy gëtt